baaxam ci mën a def lu baaxam moom euh, dama koy faral di wax fédérateur la modérateur la donc bu ci kanamee tuuti équipe bu Mabor mi xam naa ni waxtaan wi dina gën a yaatu ci ñoom mais dama am yóbbante boo xam ne ni ay demu bàyyi moo ko euh, jël euh, fas ko jox oustaz Mohamed Mbaye muy yóbbante boo xam ne defe naa ni moom at bu jot mu def ko muy course boo xam ne ni rafet na lool ma gis ci ay turu yàlla rek allah bi moom bëri na lool ci course bi oustaz macha allah. beneen série bi mooy kër jéeg ji. ak sëriñ te te dafa niroo li nga sol sax tey. te te te ah yow doo jéeg ko am de. ah waaw waaw lii de rafet na lool. Ah. kii alaaji mbaa rax ñu ci or ay damu bàyyi boo ci boo doon ci boobu nga yor daal te kenn ah. waru ma ko ci def man du ma ko ci def parce que bu yàggee oustaz euh, dinañ ñu dégg doxal ñoo ngi leen di jox te damay bañ ñu dégg sur sénégal7.com tous les jours du mois de ramadan à partir de 17h ak démb dama diggaale woon ak ñoom may leen tusi ay dama bàyyi daaneel plateau bi yëpp waa laama boutique asgay ni ma tusi bi jël ko jox ko euh, ay dama bàyyi tey de dañ ko invité rek déedéet yow naa la yow de temps moom yuusu diine dafa a Pape Ahmed Khalifa Niass man bu bu yàgg la man nee na bu la neexee sax dogoo sa jabar man maa ngi ci ñëw ba leneen ñëw bi <laughs> nga jógee sax fa laa jóg nuyu naa la sang sang yi mm, saahibu naasiri xaq bil xaqi talaati alxaq bil xaqi min alxaqi ila alxaqi xaqu xaqaiqi wal xaqu xaquhu wala xaqa yaxiqu bi xaqihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabia al huda bi hëddiyin ilaa yawmi diini mhm. nuunaani nuunaani ay naani ey waay nuunaani nuunaani mhm. lam yaktubuhuma xalamun yaa baax de mhm. fi kulli nuunin min al nuunaani ay naani ay naani ay naani ay naani dëgg la de lam yaktubuhuma xalamun fii kulli aynin min al aynaani nuunaani ay niiru jeex de <laughs> maa ngi lay nuyu baax sa verte bi rafet na lool tabaarakallah tuddee naa la ko yàlla bu gisee jaam sol lu rafet day woo malaayika yi ni leen yéen a waxoon li ma leex ma nga ci sóoratul baqara bu ma wàccee nit ñi ci kaw suuf dañuy tuuran tey deret du ma sàbbal li ngeen di wax yéen malaaka yi xool leen nit ñi ngeen di tuumaal loolu ña nga ne lay sañce yére yu rafet ndax inna laaha jamilun yuhibbul jimaal yàlla nee na bu ma gisee nit sax di góor góorlu di sollu rafet di jéem a wut oto dama koy sagal man yàlla jàppale ko ca ndax dama bëgg nit ku taaru ndax man yàlla damaa taaru yàlla yàlla laf cat nuyu naa la bu baax nuyu waa ji nga dendal mm-hmm. nuyu madame la ministre mi yor wàllu commerce yàlla na ko yàlla gën a kàttanal yaakaar boobu ñu teg ci loxoom yàlla nay gën di feddaliku ba ba mu soob yàlla nuyu euh, Seydatuna Fatimatu euh, Abdou Dóor waar nuyu soxna Ndey Dime nuyu Fatimatu sama yaay nuyu Nafi nuyu nit ku baax ku tedd nag ku yiw te dal muy Alaaji Yuusu Jeng yàlla seede na ko maa ngi koy waxtaane rek conférence bi ma doon waxtaane te bëggaan ñëw fa muy waa piscine olympique yi ma leen doon defal conférence samedi bi passé may wax ne am na ay qualité nit yoo xam ne boo jàkkaarloo ak ñoom seen yiw ci nga leen di soppe yàlla seede na ko may cité Alaaji Yuusu Jeng ndeysaan ñii ci saal bi yëpp di apprécier bu toogee rek da nga koy bëgg ndax dal ndax yar maa ngi kontaan ci ñëpp waxal ma nag euh, soxna Ayda mu bàyyi Ayda mu bàyyi mhm. lii mu ma jox yaakaar naa ni kuy tukki nga may ko oto bu ñu climatiser bëgg nga yoonam neex taalibe Cheikh nag boo ko joxee kurus gu rafet wàccoo nga ak moom maa ngi koy ñaanal ci barke eh, Mame Baye Niass léegi bala may dugg ci émission bi amul sax quinze minutes bi may toog fale na fi naan ma foto ma dama jot appel ma décroché muy euh, monsieur le ministre Matar Ba maa ngi bu baax a baax muy rafetlu plateau bi euh, di rafetlu itam sa liggéey bu baax a baax moom euh, monsieur le ministre Matar Ba daf ñoo boole nuyu bu baax ndax nee na maa ngi toog léegi di leen jàpp pour seetaan leen daf ñoo boole mu tontu woo de wax naa ko ko eh, wax naa ko ko waaw wax naa ko ko mun ma jàpp leen bis. waaw xadi colonel ah, kon dinañ jàpp. Ah, xam nga lu ma ah, neex ci xam nga lu ma neex ci monsieur le ministre. Hmm. mooy ku ko woo téléphone mu jël. dëgg la de. te nit gis nga euh, boo toogee ci jal bi. Hmm. neexalal nit ñi ndax yàlla daa fiir bëggul ku sax ci li nga ne. Hmm. koo fi dégg ku ne ancien la woon. li ma benn waay naan moytu leen. ndax ku la def soppe jàppal ni ay soppe jàmbur la ñu woon démb. doogay ñëw doon sa ay soppe yow jàppal ni sa soppe yooyu bu ëllëgee ñooy tuxoo ci yow dem nekk soppee keneen mm-hmm. avant may nekk oustaz di toog ci tele ñi ma sopp tey am na keneen kun soppoon moo xam sama baay diw la moo xam baay diw ñooñu nag ñoo tuxu ñëw ci man mhm. ni ñu ñëwee ci man noon la ñuy tuxoo dem ci keneen mhm. ndomba tànk bi muy ñëw ci say loxo ci ay loxo la bàyyeekoo mhm. kon yaakaar naa ni euh, oyofam mbaaxam ku ko jot ko monsieur le ministre te nag réew mi koo fi bëgg di jot chaque jour boo ne ko allo jàmma sant leen ta bañ ko wax sa soxla bari na koy wax doo ko jot <laughs> soxlaa tax tey tey bés bu bu am solo la daañ ci ah. ñëw ci kanam incha allah dañ koy denc ba ci kanam ñu ñu ñu wax téléspectateur li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee ak oustaz waaye boor ba ma nekk dama fay des euh, nuyu kileet yi El Hadj Youssou Dieng ñu ngi lay nuyu am mbégte amati la ci suñu plateau. jërëjëf soxna Khady ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax di kontaan ci yow ci sa sañse. jërëjëf dégg nga oustaz lu mu wax ndeke sañse daa bokk ci ci ci diine ji. gis nga <laughs> macha allah yàlla nañu ci yàlla saxal. amiin ñu nuyu téléspectateur yi ñuy seetaan. Mhm. nga seen TV moom bu koor jotee rek mu def mëninam. dëgg la tubaarkàlla teraanga yi di génn uh-huh. Euh, xam-xam yu rafet yi te sell di génn plateau bi yaañ lool ah, ñi ko toogee am maanaa lool ma leen di nuyu ñoom ñëpp di leen déggee ustaas nag di ndaanaan ndax dégg nga li mu boole yëpp ci xaq xaq de xanaa mooy dajale mooy dëgg mooy allah boo tax bañ ne xaxa xadri yi loolu dafa bëri <laughs> jërëjëf ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ci grand plateau mbaboor mi fekk si ko te rek ñuy dalal daan bu mag Adja Kiné Lam xam naa dina ma neex lool ngeen ngeen ngeen toog gunge ko. incha loolu la bu baax a baax a baax dem la ministre moom it di ko dalal jàmm. mu goog Mouhamed Wade sama rakk ji nga xam ne sama rakk xol la. Uh-huh. loolu am na yéen maa tax mu bëgg maa jox mbasañ bi kon ngéwal laa ko yóbbu rek <laughs> xam naa ne boo ko sañsee ngéwal yëngu waaw wala ma jox ko xale yi rek ma julli bu jegee tubaarkàlla borom kër yi dëgg la de ci ci ci ci lu xottil xale yi la ñuy ne uh-huh. fu mu nekk ni talatuma sam bopp xale yi laa tal moo tax lu ñëw ci xale yi la jóg dina la jox ay tusi nga xottil xale yi waaw loolu dina ma neex <laughs> kon ci kanam incha allah <laughs> tey Mouhamed ci kanam dinañ ñëw ci mbaboor bi ñu nuyu Mouhamed ku bëgg photo na fi jee nuyu nañ la wala niga <laughs> usu oustaz waxal de Khadija ba niga xaa niga xaa tuddee man usu ma lay pele del ma naan ma usu booy niga usu maa ngi lay bu baax yow laa nuyu tey <laughs> nuyu euh, Alaaji Youssou Dieng nuyu euh, Fatou euh, suñu invité madame le ministre Aminata nuyu itam ñi nga xamante ni ñoom lay bokkal plateau bi tous les soirs Fatima ak képp koo xamante ni bu 22h jotee rek nga jàpp sa télé ñu fas yéene leen euh, jox le meilleur des émissions de Ramadan ici au Sénégal maa ko wax. dëgg la sax nag. maa ko wax de. mu ci kanam ak réseaux sociaux ci kanam. <laughs> ci kanam incha allah. Fatimata bonsoir. bonsoir Khady. yaa ngi si moon namoon naa la voilà yaa ngi c'est toujours un plaisir de partager le plateau ak euh, sama naataango yëpp di leen nuyu bu baax a baax di nuyu également sa invité euh, sunu invité di madame le ministre euh, di ko dalal jàmm ci sunu plateau mais également di nuyu Mohamed ñaari Mohamed yi waaye alaaji ñu si dem di ko nuyu bu baax a baax di nuyu également Fatou Dimet ak Nafisatou Khadi ba ci kanam incha allah ma ñëw ci rubrique actu Ramadan. ce sera tout à l'heure incha allah Ndeye Dimet itam ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Khady mhm. nuyu waa plateau bi yëpp nuyu sa co-présentateur Momo mhm. ko ziar nuyu tamit euh, oustaz maa ngi lay nuyu baax baax di la ziar nuyu sama conseil yëpp nuyu tamit El Hadj Youssou Dieng di xaarandi Alima tey moom na ko ñëpp xaar ndax sañse bu rafet la def <laughs> euh, di nuyu tamit baax baax ma madame la ministre am mbégte lool dalal la fii ci suñu plateau génn nag studio bi dem ba Sénégal des profondeur nuyu képp bépp sénégalais boo xam ne rek yaa ngi ñuy bàyyi xel ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi di dem ba Touba. Mm-hmm. di ziar baax a baax la xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ñaanal tamit xalif généraux yu nekk ci Sénégal yëpp nuyu tamit bu baax a baax wa jàngu bi xati amin mu goog tout à l'heure allah ñu ñëw ci actualité bi on di ceeg ndey di met ndaw Fatou Abdou bonsoir bonsoir Khady maa ngi lay nuyu bu baax a baax nuyu également Momo nuyu Youssou Dieng nuyu également Mouhamed Mbaye et mes sama gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar am mbégte également euh, dalal fii ñu mag ñoo xam ne kenn ki Mouhamed dina ci ñëw mais keneen ki wax nga ko euh, jàmbaar la euh, ci li nga xamante ne moom lay yëngu ci wàllu ko politique mais également secteur boo xam ne ñëpp xam nañu ne yombul mu yor ko nekk jigéen. di Assom Aminata Diatta moom lañ dara sur le plateau sànq maa ngi profité ci bi Mouhamed Wade di wax di wax le ministre des sports ne war na ñëw ci plateau bi parce que euh, souvent ñun dañuy leen di invité sur les plateaux euh, du ci bari nag du ñu nangoo ñëw je parle parfois ci ñenn ñi nga xam ne dañu fari gouvernement mën na nekk également ci beneen côté donc moom soo amee le courage ñëw toog sur le plateau tout en sachant que journalistes yi fi nekk euh, dañuy poser seen ay questions de manière ci point yu dañu nga xam ne accepte na ko ñëw ci plateau bi ñu fas yéene dugg ak moom ci ay pàcc yu bari xadi ngoog tout à l'heure allah ndax tey exceptionnellement oustaz dañuy yëkkati ba noppi doog a dugg ci waxtaan wi waaw loolu de doo boo ko dee def dina ma neex loolu alaaji Yuusu tey la tey la tey la xare